moo tax Youssou Ndour kontaan naa ci moom trop euh, ban jour laa dem nga paru bu ma juumul mardi la su ma juumee mën naa doon mercredi mercredi xëy na ma dem nga paru ci yoon bi ñu téléphoné ma am lu ñu bëggoon a wax enregistré nañ ko ba pare mu jëm ci Bougane te buñ ko tegee àddina tukki dara baaxut ñu sifflé ma ko ma fexe ba yuusu ndur jot ca loola yuusu moo sol dàllam téléphoné ña yor loola ne leen bu ko fi kenn teg bu mu jàll loolu rafetul yii la réew mi war di ut di ko dox mooy luy defar mënoon na ni bugaan sama wujji la mënoon na ne li muy liggéey laay liggéey manoon na ne naa fexe ñu toroxal ko ma dëgg ci toroxam man dongo ma ne fi mais dafa sol dàllam dox ko ti buggaan yëgu ko buggaan na nga ci biti réew te yëgul ne yuusu doxal na ko lii man dong maa ko yëg man dong te bu doon fen duma ko wax ci kanam ñetti këf yi ndax bala ñoo tëdd ngeen gis ko ci net